waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi bisimila da leen jàmm ci xibaaru marax yi yàq la ca gën a fës lay du ko euh, bu euh, Sidi Lamine ñas dañ ko dàqandi ba suba yam ak alxamis ba fukki waxtu ci suba jotee euh, loolu nag daal ñàkk juboo wala boog ñàkk déggoo wala waxtaan bu àggul moom moo tax ñu andi li ni mel lu ci mën a am nag fële ca sëg ya moom am na ay mbokk jullit yu fa taxawoon di ko xaar ñoom ñëpp itam décédé yi benn la ba ñu yëkkate sax ci bi wax lu dañoo toogoon euh, bëggu ñu woon a dem euh, lu ci mën a am itam di ngeen dégg ci biir xibaar yi seede yi nga xam ne euh, kilifa yi xarit yi ak soppe yi seede nañ ko jëmale ko ci Sidi Lamine beneen ponk mbokk yi muy marché jën ba ca Pikine lu toll ci juróomi téeméeri tonni jën ak ñaari téeméer ak ci milliards ci suñuy koppar nañu lu jëm ci wàllum napp gi bés at mu jot dina ko génn fii ci réew mi lu ci mën a am nag jafe am ba bari boog dina fa jaar euh, terewul mareyeur ya di fëgg seen gémmiñ ne nag jot na ñu andi saafara ci yenn ci jafe-jafe yi lu jëm ci wàllum courant bi xoolaat bu baax a baax mbir yi ak itam doxalin bu bees diggante 2020 jàpp 2022 euh, Sénélec euh, mi ngi doon amal tey ji suba am euh, ndaje seq ko itam ak nga xam ne ñoom ñooy jariñoo lu ni mel ñoom it wax nañ daal ci facture yi ne ñu léeg-léeg mu métti ba li ci gafaka gi du ko àttan loolu yëpp jot na ñu def ci ab taxaw seetlu tàggat yaram ca la ak centre de formation Dakar Sacré Cœur bi ak Olympique Lyonnais euh, seen for liggéey wala seen lëkkaloo dañ ko wéyal ñaari club yi xaatimati nañu accord mu dem ba atum 2021 lañ ca jublu rek mooy club boobee nekk ca réewum France euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñooy Dakar Sacré Cœur di leen jox ay gune yu xarañ lool ba noppi itam di wane seen bopp ci dendop Afrique bi bokk yi ponk yàngoog ngeen taaxee lu ñëw léegi faram fàccee dellu sa naan ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi dañu koy dooree eh, ak nanu ko junjee woon muy Sidi Lamine Niass mi nga xam ne eh, dañoo dàq eh, ab levée du corps am tey jii lañ ko waroon a amal ci ngoon ci hôpital principal bu Ndakaaru mujjee nag njaboot gi yëkkati kàddu ne ëllëg lanu ko jàpp ëllëg yemook alxamis bu fukki waxtu jotee buñ ca noppee ca lañ koy jébbal boromam moo ne day ca sëg ya am na ay mbokki jullit yu taxawoon di ko fa fas yéene koo gunge euh, ba mu dem ca këram gu mujj ñu dëpp ñaanal ko ñooñee bañ jotee xibaar ba it euh, taxul ñu dem dañoo jàppoon rek daal ne mbir mi euh, dañ ci doon wax noonu rek Adia moo di jot. ñeenti waxtu bayal bi ci buntu sigu yoof nit ñi tàkku woon nañ fa lool ñenn ñi ci suba lañ fa ñëw ñeneen ñi di wéy ji ñëw lépp rek ngir gunge ndem si yàlla si di Lamine Niass. depuis 11h maa ngi fi toog sii di wéetal nañu fu mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jógee. maa ngi jógee parcelle unité ñëw fii ci euh, di teeru Sidi Lamine suñu mag suñu mbokk taalibe suñu am di jàmm tey ñëw fii si robam bëgg ko fekkee bëgg ko teewee mu nekk koo xam ne ku sigil lislaam moo tax mu gën ma neex dafa bëgg diine bëgg diine. bañ koy tuddal doomu aadama. juróomi waxtu askan wi dem wutali béréb bi ñu jullee ngir rek julli takkusaan ñeneen ñi di déglu rajo ngir rek am xibaar yu bees ci xew-xew bi. mais tey mën nañu wax ne Sénégal ñàkk na mais diine dafa ñàkk ndax Sidy Lamine dafa ku bëggoon diine la. juróomi waxtu teg fukki simili. xibaar bi fësal ni denc Sidy Lamine Niass dañ koy yóbbu ba ëllëg daal di tas ci biir mbooloo mi am ñu dem ñibbi seeni kër am ñeneen nag ñi des di yaakaar ni rek dañu leen bëgg a wàññi. dafa nekkoon koo xam ne nitu ñëpp la moo tax doomu aadama yi génn fii bëri nit encombré wu ñëpp ñëw ñëpp taxaw kon donc dans ces conditions là ak li nekk fële hôpital. ñu ko indi fii di ko di ko di ko denc à cette ak nit ñëpp boo gisee armée fii nga xam ne kenn kenn mënu fi dugg te moom sax bu fi ñëwoon gars yi cortège bi ils auront du mal à entrer dans le dans donc raison pour laquelle ñu mën a xaar bisi ay quelque temps 18 heures 19 heures ñu mën ko indi. ci sama xalaat bu gàtt rek ñoo xam naa ne Sidi moom fii lañ koy indi parce que fii. Sidi dafa yàgg nekk nit koo xam ne dafa bokk ci dëkk bi nekk ci dëkk bi fépp fu mën a doon yàlla defal ñu ko mu nekk fii ñun ñuy ñëw di ko gis di ko charré muy njabootam muy la jeunesse le futur bi nga xam ne mu ngi ko doon défendre bëgg nañ ko quelqu'un comme Sidi Lamine Niass fii nii nga xam ne bu boobaa dinañ ko mën. changé na mbiru mbokk la ñoom ñoom i neen ñooy waxtaan euh, la ñu juboo rek ñun ci lañ mën a fekk comme ñun moom danoo ñëwoon wàllu siyaan comme ñoom la bokkat ci deret waaye ñun na danoo bokk moom ci jullit ak l'islam moo taxoon ñu ñëw fii doon ko fi terru xam ne doonoo ñàkk lu rëy muy symbole ci Sénégal. ndem si yàlla Sidi Lamine Niass dinañ ko denc Yoff wala Kaolack ndax dinañ ko rob tey jii wala ëllëg li ci mënti am rek mooy denc bi yéeme na ñu ndem si yàlla bi daal di yéeme mu nekkoon nit ki xamante ni dafa amoon dimension exceptionnelle. ya Talla moom Sidi Lamine Niass ñu fàttali rek ne lay du te ji ci ngoon euh, lañ ko fas yéene woon a amal ñu dàqadi ko nag ci hôpital principal ba Ndakaaru hôpital principal bu Ndakaaru euh, ba ëllëg ci alxames ji bu fukki waxtu jotee euh, lu ci mën a am moom ki nekkoon président directeur général bu groupe Walfadjri CD yi benn la noonu ngeen ko gisee ay mbokki jullit xarit soppe àndandoo fu ne la waaye bàyyi ko ñëw yëkkati fa ay CD yu rafet du Cheikh Diop laata euh, xibaar yi di jeex ñu wéyali xombal euh, wax ci leneen ak itam ànd gësam ba fa ne euh, ñoom nag dañoo takk ba dëgër ci xeex bi ne ñu Abdoulaye Diouf Sarr dafa mel ne ku leen di xupp waaye loolee yëngalu leen moo tax ñu xëy amal toogaanub ñaxtu gën a wax la leen mitti ñu teew lu ko yoroon seen kàddu muy nag Daouda Camara Daouda Camara nag ay kàddoom Cheikh Anta Diop ak Seydi Latif ñoo ko taataan ñun mënuñu comprendre un état boo xam ne depuis le mois d' avril 2017 ñu avertir la ne dañuy dem en mouvement def ay sitting réagir ñu commencé def ay euh, euh, euh, grève réagir lool ñu def rétention de l' information réagir lool ñu ñëw ci programme sensible yi ñu laal pourtant laal nañu PNT laal nañu pale yu mais kenn yëngatuwul bi ñu laalee PF ak PV la ñu yëngatu di ñay-ñay si kaw nit ñi defe ne comme ça ñun loolu nañu yëngal l'État est garant de la santé des populations nañ ko xam du ñun dañuy utiliser ñuy liggéey donc population yi nañu xam ne état bi moo ñuy jëf jëriñoo pour que ñu liggéeyal leen du ci ñun kon su fekkente ne ñun dañuy wax ne dañuy def loolu su fekkee état bu responsable la ñu yëgloo ne dañuy dem ne dañuy arrêté programme yooyu su fekkee vraiment c'est un responsable waroon nañu toog woote négociation ne ñii nañu def mais dañoo bàyyi ba ñu yëkkati loolu ñuy door a je le dis gouvernement nul parce que mënuñu comprendre population bi am si li nga xam ne moo leen gën a yitteel depuis avril 2017 ba léegi jéemoo ci wax benn bat faale woo leen loolu lu lu leen ñoral mooy seen politique mooy ku leen falewu leen mais ñun nag xam lu liggéey suñu liggéey lañu am te sursaas lépp lu mu am da koo xeex. donc mhm. moo tax menaces yi ministre def faale wuñu menaces yooyu na def lu ko neex parce que ñun liggéey la ñu xam te dinañ ko continuer ça fait combien de mois ngi nii CMU ko. kenn waxul CMU ça fait ne euh, contractuels kenn waxu ci dara ci ñoom recrutement bi ñu doon wax pour les personnels communautaires kenn waxu ko personnel communautaire ci dara lu chose en a marre ànd gisam fi mu toll toll ci nag euh, jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi ko fay am mareyeur yi ñoo ko wax ñu sàkku rek euh, daal ñu jàppale leen ci mbir mi rawatina nguur gi ndax nee ñu li fay jaar ci jën lim ba takku na na bu nu xaymaa euh, téeméer la ak juróom-ñett fukk ci ay tonnes ba noppi itam lu jëm ci wàllum napp gi euh, fii ci Sénégal la muy génne dafa bari Salif Sowaas Malick Diop dañuy fekk banlieue bu Ndakaaru marché central bu Pikine ma ngay xaar lu muy xaar mooy njàppale bu war a jógee ci gouvernement bi ñëw ci moom ngir mbir mi gën a mën a mëcc ay fii dox. sunu marché bi danoon bëgg mu nekk numéro un loolu nag ñu siy liggéey. ànd ak mareyeurs yi président organisation yi ni ñuy jàppale duñ jox seen xalaat marché bi salté woon na yàqu woon na waaye léegi ni ngi jël marché bi tegaat ko si yoon léegi nag lu ñuy xaar mooy ndimbalu chef de l'état ndimbalu ministère de la pêche ndaxte marché boobu mu fi nekk ba léegi président Macky Sall euh, mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi waaj dimbalenu mais xam naa ne waaj bi yëpp lu mu bëgg def si marché bi xam naa xeeb na loolu moo tax mu yeex xeex bi association nationale mareyeurs Sénégal dugal na ci loxoom territorial nee na daaw wàllum napp gi duggoon na ci Sénégal ñaari téeméeri ñeent fukk ak ñetti milliards ci sunub xaalis. 2010 ñu ngi amoon ci quantité bi ñu doon napp ci géej gi 400 000 tonnes. aujourd'hui 2017 bi tey bi ñu génnee résultats yi ñu ngi am 500000 tonnes yu tegal. Hmm. kon xam nga ni napp gi yokku na mais weer bu jot 15000 minimum dina dugg si marché bi weer bu jot 15000 yooyu su ñu ko xaymaa si valeur commerciale egg na ay 1 milliard 400 1 milliard 500 minimum loolu mooy ma si xawee manque tuuti donc loolu di wan ni euh, c'est euh, marché mi ngi joué rôle bu am solo si secteur de la pêche. quai yi di fi ñuy wàccee jën yi ginnaaw napp gi bu dee fukk ñett la ñeent yi ba léegi. doxaguñu gars yi nag nañ ko loolu ngir koom gi di seen secteur pêche bi la gën a mën a suqaliku. Salif Sow ñu sant la gërëm la wax ci leneen muy tout tànk yi am jafe-jafe ci wàllum yoon ñu ne nag ba tey ma ngay ami jafe-jafe loolu nag ñi ko xamle di kuréel gi euh, lëkkale euh, juriste yi fii ci Sénégal ak itam euh, beneen kuréel muy toppatoo lu jëm ci àq yelleef ak wareefu tout tànk ñoom ñaari nag kuréel yooyu amaloon nañu am ndaje te suba ci Ndakaaru ci teewaayu Aïssatou Gueye Ba Gervais Yao ñiy liggéey ci wàllum sàmm ak doomu aadama amoon nen ay jàngaat ngir xeex xoxatal yi ñuy teg ndaw ñi ñu gis ni foog ñu boole seen doole. xalaat nu ñuy def ba xale yooyu ñu gën leen mën a sàmm parce que xale alalu yàlla la donc quel que soit difficulté am soit jafe-jafe bu mu am ak yoon dañ ko nar sàmm. ngir loolu am nag laaj na ñu jëfe ko. ñun ñëpp ñu ngi fii toog mooy justice bi mooy acteurs yi ñi ñi ñi yëngu ci wàll xale ñu mën a xalaat tënk dara lu nga xam ne mën nañ ko jox suñu autorités yi pour ñu améliorer euh, environnement juridique bi pour ñu mën a ameliore condition xale yooyu noonu am jafe-jafe ak ak yoon. mu Wane kenn si ñoom nee na laaj dafa am ci société bi. xale yi nga xam ne mu ngi jógee ci ay famille yi nga xam ne amuñu. dañu am problème adaptation nee nañu aussi am na délinquance lu entre parenthèse bu bees nga xam ne da ngay gis ay xale yu nekk ci famille yi nga xam ne am nañu ah ñu jàpp leen ci ay chèque yu ñu jël xaalis mais parce que aussi ñu ngi nekk ci société ba nga xam ne dañuy euh, dafa mel ni rek dañuy jaamu xaalis. xaalis fi ñu ko teg ci valeur dana dem ba nga xam ne xale yi yaa yaakaar nañu soo ko amul bokkutoo. beneen jafe-jafe mooy tout tànk yi ñuy tëj kaso te bu ñu génnee mun a sàqu mu laaj gunge. Aïssatou Gueye Ba ñu sant ko gërëm ko wax ci leneen ca diwaanu Ndar géej ne ñu nag euh, jafe-jafe ci wàllum yoon euh, saa yu nu ko waxee rek téeméer boo jël euh, ne ñu ca këyit ya ñuy indi ca ëttu àttekaay ba juróom ñaar fukk lu jëm ci wàllum suuf la ki xam ne lu ni mel di Ibrahima Diallo xam-xamam màcc jëm ci wàllu wi mën a jot na nag ñu taxawal politique buy xeex li ni mel ñu teewlu ay kàddoom ma ngi ko yëkkatee ca Ndar ci teewaayu seeni Diop. li yoo jël 100 si mbirum suuf la donc mu doon man mu doon contentieux bi nga xam ne walla contentieux administratif wala contentieux pénal wala civil en tout cas daal donc 70 pour cent si lay porté. Euh, développer Afrique jàmm mënu fi am tant que euh, formé wu nit ñi. si nu ñuy euh, euh, régler donc wàllum suuf ak nu ñu koy yoree ah, mu doon yore bi nga xam ne dafa war sell si biir état yi mais aussi suñu diggante ñun ak état yi parce que conflit yu bëri yu nuy gis fii si en Afrique de l'Ouest Sénégal xamoon na ko avec Mauritanie aussi nga dem si biir Afrique de l'Ouest conflit yu bëri aujourd'hui au Mali en Mauritanie ailleurs yooyu yëpp c'est des conflits foncier conflit foncier boobu nu xool ni tey sax bu buñ ko résoudre ndóol bi day gën a yokku ah bodd bi day gën a yokku donc préalable la loolu tax Union africaine chef d'État yi jël résolution créé benn agence bu naan euh, ALPC ALPC boobu effectivement ak coopération allemande créer des centres au niveau de chaque Euh, chaque pôle woon ci boppu xibaar yi lu jëm ci wàllum courant bi ñuy yëngatu ci euh, mbir mi nag euh, amal nañu waxtaan yu am solo jëmale ko nag ci payoor geek xoolaat ko atum 2020 la jàpp 2022 maanaam at yooyu la soxal Senelec nag tey ji ci suba ndaje mi doon fësal projet bi la ko amal li ñu bëgg rek mooy fexe daal ba gën a indi ay jéego yu am solo ci wàllum courant bi ci loo Mamadou Sama amadu Ba kuréel gii di yëngu ci wàllum kuran bi commission de régulation de l'énergie amaloon ab ndaje tey jii xoolaat tarifu courant yi ci horizon 2020 2022 doon seen ponk bu gën a fës. wàllu courant bi ci nun ko tëralee fii ci senegal yoon tënkee ko noonu 1998 ba ba ba léegi Sénélec ak consommateur yu muy jaayi courant. ak état bi nga xam ne moom moom seen Senelec te di ci def alal alalam muy alalu askan bi dafa am ku nekk seen digg di arbitrer mooy commission de régulation président Ibrahima Sarr jiite ko ñetti at yu nekk nag bu ñuy daje xool ndax njëgu courant bi ñaata ñaata la war a nekk nan la courant war a jar ci Sénégal ci loolu nag pour ñu wax wax ko kenn tëjuwul ci benn néeg moom mu décider ko wala keneen décider ko ñëpp koy waxandoo comme ni ngeen ko gisee tey ni ñu fi daje tey nii lay demee ba. fii ak juróom benn weer juróom ñaari weer sax wala lu ko ëpp nu doog mën a xam ñaat ñaat ñaata la donc du liggéey bu gaaw du liggéey yu taqale du liggéey bu yomb mais en tout cas liggéey bu set la liggéey bu leer la te leer bi moo ci ëpp solo. ay facture yu ñu jàpp ni dafa cher lool directeur bu Senelec bi di ci indi ay leeral. mais comme nun du ñuy jaay pétrole pétrole nu koy jënd bitim réew du ñuy jaay ay moteur ak ay pièces de rechange nu koy jënd bitim réew. donc lu ñu ko jënd loolu yëpp suñ ko dajalee si lu ñuy mën a basé wu pour xam aussi ku nekk li nga jënd si ngay mën a jaayee teg président de la République na leen ci xalaat boobu décide dogal na ko weer bii nu dugg nii daanu gis ni ñoom léegi parce que premier décembre bii la waroon appliqué wu yaakaar na weer bii di ñëw su seen facture ñëwee daanu gis ni am na différence parce que aligné nañ leen léegi ci Senelec. am courant bokk ci dundinu askan wi ak découverte gaz bi population bi di dundee yaakaar ngir njëgu courant bi. gën wàññeeku. ñu wax ci facture yi léeg-léeg borom kër yi ne dina métti ci ñoom ba lana ca gafa ga sax du ko àttan euh, Senelec nag ak kuréel gi lëkkale ñiy jëfandikoo daal courant bi ñu ne léeg-léeg ñàkk waxtaan dina tax daal euh, ba léeg-léeg jafe-jafe yi dañ ci mën a indi saafara ki yore kàddu ko kuréel gi euh, di Mamadou Seydou Anne la ñuy teewlu. ce qu'on appelle RMA RMA bi loolu la Senelec ne soxla na nangam xaalis. commission bi liggéey lépp finalement nee ko man jox naa la nangam seen léeg nag sukkandu ci ne li nag war naa jaay kilowattheure à temps mais dañu bëgg bi yoon président CRSE mu wax ju quand lu ci gën a leer ñu xam ci RCM e bi parce que su fekkee ku nekk dans une direction loo laaj comme budget ñu jox la ko ça ça risque nulle part beneen bii les normes norme mooy gouvernement bi mu ne Senelec il faut nga jël ay clients yu bees nangam su fekkee client bind na la tontuloo ko ci gannaaw semaine war nga dampay client bi Senelec euh, par exemple gouvernement bi ne loolu daal loolu ce qu'on appelle les normes or Senelec mosul mosul def la nga xam norme yi baax ñetteel bi mooy réglement de service ba nga xam ni boobu mooy teere bu ne yow client lii nga war def Senelec Senelec lii nga war defar client bi or loolu dañu waxoon dara dafa dégg ñeenti at ñu toog jékki-jékki rek ñu dégg règlement bi génn alors que ñun en tant qu'association kenn newul génn CRC aussi newul génn na senelek newul chaque client soo ñëwee di di di fay sa facture ñu jox la yooyu ñeenti point mooy point gën a diis ren ñu bëgg ci ci tarification bi ñu jëm aywa ñu wax ci leneen muy nag opération kaaraange gi euh, ba mu jeexee lu toll nag nee ñu ci lu jege junniy kër euh, daal dugg nañ fa xoolaat ko dek nag li nga xam ne moom mooy formation yi jëm ci wàllum wér-gu-yaram mën nañ ci fanweer ak euh, ñeent waaye itam tabax nañu ay bërëb yu am solo service d'hygiène ne nag ñu toll ci ñaari téeméeri doomu aadama ak fukk itam ak juróom xoolaat na leen bu baax a baax loolu nag ñu ngi ko amal ci fukki fan ak juróom ñett waaye itam toll ci ñaar fukki millions ci koppar itam génn na ci euh, major euh, Alla Ngom euh, moom nag mooy chef brigade départementale d'hygiène bu Ndak ay kàddu may mën na njaay ak Gervais Yao ñoo ko taataan contre nañu 34 formations sanitaires contre nañu 15 établissements de fabrique d'eau ñaar seen ndox baaxut dañ ko tëj donc arrêté nañu personnes ci juróom-ñaar yi dañ leen a déféré devant le procureur ci ci des 200 yi dañu fay amende bu ñu dajalee amende ñu dajale yëpp en 18 jours de kaaraange dafay nekk 20 millions 150 mille bu ñu verse trésor ci 18 jours de kaaraange donc loolu mooy liggéey bi am na solo ci wàllu xeex pour set googu am te bu ñu ko gisee ba léegi ñu ngi gis ay progrès yu baax ci kaaraange. semaine prochaine dañuy def lu ñuy wax dispositif sentinelle xam nga léegi fet fête 31 ñëw te am na commerçant yoo xam ne dañu sàggan dañuy bàyyi ba fête yi ñu jël produit avarié ñu jaal ko. moo tax ñu créé benn nitu sentinelle day dugg ci marché gaari sama prochaine pour xool ñam yi xool commerce bi xool vraiment hygiène alimentaire pour aar wér-gu-yaram ci feebar yi nga xam ne mën na tukkee ci hygiène alimentaire muy feebar biir bi daw yi ay choléra yenn jàng yëpp da ci mën a tukkee. ñu dellu hôpital principal bu Ndakaaru foofee la ñu doon euh, fas yéene woon a amal levée du corps bu euh, ndem si yàlla Sidi Lamine Niass euh, tey ci ngoon la woon dañ ko mujj dàqandi ba ëllëg yemoo ko fukki waxtu di bésub alxamis ci kàttanu yàlla Cheikh Diop ma nga fa woon ànd ak Aliou Diagne. ca lépp daal di door normalement. ay junni junni doomu aadama jóge fu nekk ngir daal di fekkee cérémonie de levée du corps bu Sidi Lamine Niass nees tuut xibaar bi daal di wàcc. ñu xamal ñu ni bi la levée du corps nañ koy doxal li waral lu ni mel nag moom moo di ñàkk juboo bi nga xam ne rek famille Niassène ñàkk nañ koo juboo ba tey famille bu Sidi Lamine Niass du artu ci mbir mi. mais ñu rek ma suba dinaa suba ñoo xamante ni féete nañ ci langue politique bi di xam ne ne duñ ci wax benn kàddu ndax lii lii affaire famille la. ndax loolu du sama warugar du sama euh, du sama yëf du sama cër li ma fi indi booy kii fi jógee di koo xam ni ku Sénégal naw la koo xam ne dafa nekkoon comme général boo xam ni moo doon aar Sénégal. sët bu Abdoulaye ñas juddu ci fukki fan ak juróom ci weeru u atum 1950 foofee ca Kaolack loolee tax na ñenn ci taalibe ñaseen yi nag jàpp ne yoon la ñu daal di koy denc foofee ca Kaolack. Oh, loolu mu ngi si ñàkk parce que réeroo la xam nga famille moom. surtout Sidi Lamine fu mu bokkoon la Sidi Lamine yaakaar naa ne ñun ñii sax moom moomu ñun ñii rek moomuñ ko woon. mu représenté lu mag a mag mag si si boobu yoon moo tax ñu amoon yéene bëgg ñu denc ko foofu calew nañu seen. ay personnalité yu bëri bàyyee ko fu nekk daal di ñëw moo xam ñile bokk ci langue politique bi ci wàllu diine ak feneen fu ñu xeetoo daal di def déplacement bu rëy ngir rek daal di rendre hommage ki nga xam ne. moom moo di Sidi Lamine Niass. Cheikh Diop ñu sant gërëm la des itam ci principal bu Ndakaaru kàddu yi eh, yu rafet itam la ñu fa teewoon yëkkati moo xam mu aju ci wàllum politique kilifa diine ak kilifa eh, kilifa diine aada ak cosaan eh, seede yëpp benn la ñëpp ne jullit xaqan ngeen baal ma moom moo dëddu ñu teewlu seen i Cheikh Diop ak Aliou Ndiaye. Sénégal ñàkk na ku koo xam ne ki dama ko nawoon lool donde doonoon na mag ci man ak. mbokk nawoon naa ko ci li nga xam ne lii noonu la jàppoon war doxal liggéeyam muy taskatu xabaar. Sidy Lamine seede yi benn la Sénégal bi mu dëddoo ba léegi seede yi benn la ci nit ki euh, bëggeel gu mu am ci liggéey bi fonk gu mu fonk ndaw kóolute gu mu am ci jeune talent yi n'est-ce pas bëgg gu mu bëgg luy dooleel démocratie réewam. kenn la woon ci ñun kenn la woon ci euh, xeex pour que. ëllëgu Sénégal mën a doon euh, tawféex ci ñépp ku nga xam ni kii tey soo taxawoon junney chaise am junney pla euh, junney nit teew mu am benn chaise yow lan fay teg waaw ay nit ñu nga xam ni soo leen ñaanee ñu may la soo leen ñaanul ñu may la ñooñu. seen bët sunu gees soo wane nga gis. kenn dootu ko fàtte ba ko gannaaw ba ko maam xalif ñes juree borom xam-xam bu kenn berantewul yal na ko borom bi teeru aljana firdawsi ak képp ku mu fekk barzak wala ku ko fekk ñu wax ci leneen mbokk yi muy euh, Kaffrine nee ñu nag dina am daal ay jéego yu am solo yu ñu fa def ci wàllum koom ak euh, koppar yi fa deex dugal lu toll euh, ci juróom-ñetti téeméer ci ay millions nee ñu def nañ ko fa mu soxal lu jëm ci wàllum mbay mi waaye itam càmm gi lañ ca bëgg rek mooy fexe ba ndaw yi ak na yi gis ci seen bopp ci koomu ak koomalu réew mi Pafara Gning Yaya Diallo lu tolloog juróom-ñetti téeméeri milliards ci sunuy koppar moom la ñuy jagleel ñii di Kaffrine deer nag li mu bëgg jàppale gars yi ci projet yu mag yi ak nit ñi tamit mën a demal seen bopp bi la financement nag ñëw ci waxtoom te amul benn xaaj ak seen. ci mois de mais biñ xayma dañ ñëwoon danañ am lu toll ci juróom-benn téeméeri millions ak lu tegal tuuti bi nga xamee ne dossier yegg nañu délégué général nee na. bi mu waxee président de la montant bi nga xam ne nii ci sumb bu njëkk bi moom lañ prévoir pour Kaffrine président daf na leen yokkal leen deux cent millions ndax Kaffrine région bu bees la des na leen jàppale ndax jigéen ñi Kaffrine mérito nañ ko xale yi Kaffrine mérito nañ ko kon ñun ñu doon wax na nañu yokkal tàng loxo nag ca kalapes lu ëpp onze mille dossiers moom la ñu déposé woon ci table bu gouverneur bi moo am nag leeraange bu am solo waaye projet yi gën a baax financé nañ leen traité nañu dossiers tey nag mooy dossiers yi delloo si nañ dossiers joxe ñi nga xam ne ñoo njëkk a am ci ci financement yooyu li ñuy ñaan nit ñi rek mooy ñu xam ne képp koo xam ne am nga ci ci financement bi nga xam ne lii dañ la ko lebal boo remboursé ñeneen mën a am ci financement bi kon ñuy woo ñëpp ñoo xam ne am nañ ci ñu xam ne ñoom daal bu ñu bu jotee ci seen financement nañ ko dugal ci li ñu waxoon bu paree nag. ñu remboursé ndax mu am ñeneen ñoo xam ne mën nañ naam sax ñi njëkk déposé jox nañ leen seen i koppar DER mu ngi encouragé baax ñeneen ñi daal di déposé ñoom it ngir ñu mën a yokk enveloppe bi c'est en effet une concrétisation d'une volonté du chef de l'État le président Macky Sall qui a bien voulu octroyer chaque année 30 milliards de francs CFA aux jeunes femmes et hommes de ce pays au jour d'aujourd'hui nous avons pu euh, mettre 397 millions qui a touché 888 personnes et à terme nous allons financer pour plus de 800 millions. financement yooyu nag dañ koy delloo ndax taux bi la doon mu nekk système boo xam ne soo joxee ñu dolli la ñeneen ñi mën a am li nag dafay tax mbir mi daal di law mun a continuer ba ñëpp jot. Pafa ñu ngi jërëjëf ñu jéggalu ci tàggat yaram bi Sara Cissé dina ci ñëw noppi na ngir jox leen xibaar yi ci français lay doon di leen ñaanal pananum jàmm di ko sàkku